Les mêmes haines, les mêmes histoires d'amour, les mêmes points qui mènent nos cœurs vers la porte d'aller sans retour. Les mêmes larmes qui coulent, même sort qui mouille, même dose qui saoule, les mêmes âmes que nous foutent la trouille. Et voici Paul et ses le gentleman des blocs qui cible les filles avec ses vignettes et qui Bonjour et bienvenue dans votre émission Paul et ses polettes. Aujourd'hui, au menu, Mbaran Lenny Wartane les mêmes histoires d'amour les mêmes points qui mènent la bon sous le terme bu melni la prostitution nga rôle que un dictionnaire on te dira que la prostitution c'est une activité qui vise à échanger de l'argent contre des relations sexuelles donc sous les Mbaran, dans Mbaran, il y a échange de relations amoureuses contre de l'argent donc on peut clairement définir le comme une sorte de prostitution sentimentale Mais nous avons ci ñuy Nous ñan un si on regarde les acteurs il y a d'une part ay jigéen qui sont ay cas social lañ jigéen yu perdre seen valeur ba pare de yom. d'autre part ay góor yoo de ne dañ ñàkk fayda amuñu ambition seen yaay liggéeyul seen alal lew donc soo ko xoolee ba ci biir mën nañu sax c'est un business gagnant-gagnant waaw et c'est là où les filles se trompent parce que jigéen dañuy yaakaar ne góor bi ñu nekk di mbaraan ñu ngi koy nax alors que c'est pas ça góor yi nekk di mbaraan xam nañ baax na dañu mbaraan dañoo ñàkk fayda ba pare nangu ko dafa am ñu bëgg mu jaral leen ñu nekk ak yow di la financer di la jox seen xaalis mais ñoom ñoo gën a xam ne que dañ leen di nax mbaraan bi nekkul sax mbaraan léegi mbaraanante moo am.

di monsieur le président de la république Macky Sall l'ensemble de son gouvernement les députés pour nous voter un projet de loi à l'assemblée nationale Si dañuy professionnaliser mbaraan Madame, comme prostituée, nous ni ñu amee Nous carnet ñoom tamit ñu jox carte pour comme ça nous faisons impôt ndax mbaraan bi au moins ça. mu avons une économie Sénégal

non mais voilà ka jàpp pota pot dafa neex ku mu yab laay laajte man il y a. voilà Ben, axe bi mo njëkk développer fofu lay laay premièrement daf euh, prostitution buñ koy définir ci dictionnaire bi day nekk échange d'argent euh, contre. Euh, relation sexuelle. une relation sexuelle. Mhm. mu ñëwaat di mbaraan day nekk échange euh, d'argent contre. des sentiments des sentiments me préciser ko rek ben affaire hein? pot déjà daan na ba pare voilà euh, parce que prostitution lenn la mhm. nit ki kooram la jël def ko comme marchandise mhm. tek ko kooku day jaay hein parce que moom bañ na ba day génn taxaw ci biti amna ñu xamantene xamante dañuy préférer nek seen biir kër mhm. donc ñom dañuy jaay ku ñëw so bëggee jënd so bëggul nga bàyyi mais buñ né mbaraan nekul que ni échange amu fa sax relation sentimentale amu fa parce que buñ né mbaraan ku góor ki mëna bëgg waaw te lii buñ nee mbaraan rek ku jigéen ki bëggul benn benn affaire rek moo ko nekk ci ko góor ki soit am na lenn loo xam na ko ci moom xaalisam mm-hmm. wala rafetaayam moo ko intéressé te d'habitude rafetaay mm-hmm. li leen di intéressé tout le temps mbaraan bi benn affaire la muy xaalis mm-hmm. donc échange de relation sentimentale amu fa parce que kenn ki rek moo ko intéressé mooy nan lay def ba nax ko ba gëmloo ko ni daf ko bëgg ba jot li nga xamante ne moom la yore donc pot foofu daanu comparaison voilà pot moom foofu nga ah. amul yoon te en plus man li ma gën a nakari mooy moom dafa jël mbaraan rek taxé ko xale jigéen ñi doy na waa te góor yee fi dàq mbara. am na ah kañ ngay dox ba daje góor boo xam ne dafa naan man benn gel rek laa am. amul amatul fenn. amul kon léegi la moo tax mu jël mbara taxi ko xale jigéen bàyyi fa xale góor yi te jigéen lu mu def rek góor a tax mu def ko. góor waaw wala déet. loolu am na ah kon xale jigéen da jigéen kat. mais góor ñi ma ma ah. dolli la benn affaire moom hmm. sol na chemise bu baax leer na ma ni chemise bii mu def nii xale jigéen yi ko jënd te xale góor yi léegi xam nga lan la lañ lay wax du ma génn cas social Mm-hmm. boobu lañ lay may da ngay wax ñu ne du ma génn cas social ku xam yorul dara papaam yorul yaayam yorul du génn ak moom parce que daf may sonal donc xale góor yi dañuy mbaral ñi ngi nekk ak ay xale jigéen yoo xamante gëmuñu leen mais lan moo leen intéressé ñoom parce que xale jigéen nag dañoo baax macha allah xale jigéen dañu am maanaa dañuy jënd ay cadeau di ko joxe di jënd ay lacoste di joxe di jënd ay chemise di joxe di jënd ay dàll yu góor ñi dañuy mbaraan jigéen ñi. jigéen ñi di mbaraan góor ñi taj temps ndax nga soñ ko wax. lool kon pot foofu tamit daanu la tey moom fi nga dugg dara baaxul. léegi ñëw na ci beneen point nena ñi mbaran en général moy ñi nga xamantene cas social lañ mhm. pourtant am na ñu xamantene dañu nekk ci situation yu bien amnañ papa bu yor amnañ yaay bu yor et tout mhm. mais le problème moy que ni mhm. euh, peut-être que ni sa papa ak sa yaay lu ñu yor yor yor des fois day am affaire yu xamantene peut-être ñom dañ koy soxla ba nga xamantene duñ ko mëna laaj papa duñ ko mëna laaj yaay mais nak pour te dire moom dafa yeb cas social sax parce que yow di nga nekk cas social mais di nga diñ di nga diñ ha ah, lam do gene ci mbedd demit xalé bu gor bo dajé ak mom ñaan ko té sax ma ma doli la ben affaire jigéen boo melee na nga war a mel gis nga toog fa nga war a toog xam sa bopp xam yaay kan xam sa valeur góor moo lay fekk fa nga toog jël xaalisam di lu ko xëpp te ñaanu ko ko te liggéeyu ndaw la ñi ngi mayee seen xaalis te jigéen ñaanu leen ko donc comme moom li mu wax rek nee na peut-être góor ñooñu seen nday liggéeyul wala xaw ma xaw ma dañoo amul xaw ma ñaan la nag lool sax nag yabaate la ndax tim ndayu jaar mu naan ko liggéeyu te xamoo lu ma def kër baayam yabaate la nit mën na liggéey xaalisam dignement Ah, am ko dignement mom ko gis xale bu digene bëgg ko mu jaral ko mu di ko may mais yalla moy def ko ni des fois les sentiments ne sont pas partagés da ngay bëgg nit nit ko dula la bëgg mhm. mais des fois tamit nit mën na ñëw yor xaliss doxaan na doxaan na ba son nga bañ amna goñu xamne dañuy pet dañuy mhm. persister duñ nga nangu bay légui nak yow des fois du sa xaliss mo la féetee mais da nga mhm. nan ak ah, ki da sonal na ma affaire yo te gi na bay essayer ba xam ça va marcher ou pas nga nek parce que jigéen moo bëri yërmande bëri yërmande ñu bañu bax dañu baax macha allah xam nga ñun dañu baax loolu la des fois nga nekk góor boo ci dajee góor boo xam ne dafa baax dafa am góor yi xam te ne tamit ils sont tellement gentils galants bokk ñu góor ñi nga xam ne dañoo nay du ñu maye du ñu maye comme genre gi comme genre waaw ñu maye xam nga léegi dafa am góor ñi xam ne noonu lañ ma dañ la yóbbu ngay defi shopping di la yóbbu resto ngay lekk lu baax. Ah, di la yóbbu ngay lekk glace. xam valeur jigéen lañ baax yi ñooñu dañoo xam valeur jigéen. xam valeur jigéen. waaw nag bu fekkee ne ku jigéen gi daf koy mbaral. parce que genre groupe du ma yéene kenn ah. mais yàlla mooy def loolu des fois sentiment yi mooy loolu. des fois nga bëgg la bëgg. mais tamit du cas social kase mooy mbaral. dama mhm. bëgg pot ci boppam. Mhm. mu xam loolu nekk que ni cas social kase mooy mbaral am na xam te ils bien boo duggee tey seen kër suñu ne la toogal ñemewoo toog. seen papa am na seen yaay am na mais dañuy mbaral parce que xamala la xale jigéen nag léegi nekkul lépp nga war a laaj sa parent am na loo xam ne sa papa ak sa yaay doo taxaw nag papa may ma lii may ma la loolu moom am na waaw ki ngay génnal ngay ngay ñëw nag laaj ko ko te doo ko xaalis góor ku góor ki mooy toog ba si yàgg rek may ko ko après suñu génnee si bi di yàq sa der loolu la ñuy def kon la faute ñoom la ñoom dañu ñoom ñoo sikk voilà ba mhm. bëgg mhm. mhm. te mais duñu mais tamit maak yow ñoo fi nekk xam nga waxtaan wax dëgg ca la mu neex neex tamit ñun tam xaw nañ sikk donc xam nga nañ nañ nañ nangu benn affaire pour am lu loo xam ne ñu nangu ko parce tamit ñun on est un peu matérialiste te su ma matérialiste matérialiste bëri na façon am na jigéen xam te ne rek moo leen intéressé ci nit du nu ñu def rek ba nax la ba sa dafa koy jaral def ay deal ak ay copine ko ni dañ koy teg dil mhm. te buñ ne buñ ne na la teg dil bu lekk sa xaaj dinañ la teg dil ba lekk sa mais yàlla xamante ne nag man am na loo xamante ne du ko woowee sax matérialiste mhm. mais boo toogee sa kër bëgg lu baax bëgg lu baax di def lu baax mais góor ñi dañu bëgg lu baax suñu la gisee dañuy ñëw na fekk la fi nga toog gis nga nag Kaja benn góor ah. la fekk fii nga toog mu may la kër nga di ko ko delloo wala mu may la oto nga di ko delloo doo ko def danga sa ndey ko liggéey sa ndey ko liggéey oh, boo ko defee ñu da ngay mbaraan loolu du mbaraan du tout man di góor bu baax bu ma fekk ma toog nga yor sa lu baax jël ko may ma ko dama koy jël ko daf ñu yëpp am nga ful la dama koy jël Kaja ba mu nekk kala gis nga maa la xaar ma may la benn léegi xale yu jóg xale yu xam la ñuy wax léegi man duma ni nga ko waxee sànq duma génn cas social jigéen buy investir si man lay waay génnal comme comme noonu ñu koy waxee noonu la ko jigéen di waxee. te soxna Kaja ah! jigéen da war a bëgg lu baax. Ah, jigéen dafay bëgg lu baax. ku bañ a mel sa yaay la fi mu la war a julee. Mm. macha allah nga taxaw ci seetu la gis bu nekk war na laa bëgg nag da ngay ci yow lu xamante ne mm-hmm. mooy loolu góor ñu bëgg ñu baax lu lu baax ñu ngi dafa yabaate non ndax na toogee ne président Macky Sall ak gouvernement bam dañ ne pot du dara. nga sañ ka wax pot du dara nga sañ ka wax. xam nga xam nga pot daf ñuy yàq. Ah. bu toogee naan mbaraankat yi nañ leen wutal carte dafa mel ni mi nga moom xamul ne mbaraan mën na am sans pour autant que sexe am fa. xanaa bien sûr mbaraan day am te sexe du fa am. mais xale jigéen ñi dafatuñu ñi ñuy mbaraan dafatuñu raay sax duñ ko waaw. du ñu am raay. xoolal bay am fóot. bay am fóot ñu ko ngay wax waxu sexe doo fa sax yi yegg gis nga xam nga ñan ñooy ñan ñooy mbaraan ba pare nag di di yegg affaire sexe ñooñu mooy dof yi. ñoo xamul seen bopp xamuñu lan mooy sensu mbaraan. Mhm. dañu war a dem ci ñi nga xamante ne peut-être xam nañ ko toog waxtaan ak ñoom ñu wax leen lan mooy mbaraan. fa sexe amee sax nag dootuñu ko tuddee mbaraan. prostitution la prostitution. donc bu mu mbaraan. ak prostitution c'est pas bi kooku dafa yor kooram. def ko mhm. comme un marchandise teg ko di ko jaay ku bëgg jënd ku bëggul yaa xam kii mbaraan nag day def ni ah, mel ni mu mel bëgg lu baax góor bu baax bu ko fekk tamit jox ko xaalis mu jël ah. mu naan Macky Sall Macky Sall du la faale gouvernement bi du la faale danaan kii def may doo dara merci. c'est souvent les mêmes scènes les mêmes haines les mêmes histoires d'amour. les mêmes points d'après li mu wax yëpp Ben, ben, côté condamné mais beneen côté bi du condamné ben jigen. parce que nag góor bu la fek nga toog mu jël alalam may la ko da nga koy jël juste que jigen ni, buñu nangu di mbaraan ni ba paré di jël sen sexe di ko joué gis nga sexe dafa nek loo xam te ne kenn du ko xool jigéen da ngay xam yaay kan xam fi nga bokk toog rek le bu baax mo la fek invité donc nañ ko may notan ah. ñaata nga koy may ba d'après li mu wax yi wax na fi affaire de gouvernement xam nga xot mom moy lolu quoi mais dama koy arrangé dama koy arrangé lii ma koy may nii waru ma ko may sax mais dinaa ko ko may parce nag dafa yabaate trop bàyyi may ko 5. 5 ay yow saxoon nga de. bàyyi may ko 5 ak li mu fi développé yëpp salive bi mu fi ñàkk yëpp nga koy may 5. laa koy may wax ma ñaata nga koy may yow <laughs> bon. Bon, nous passons au Médal, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro sur Problème de gain, gel, gain de rose, toujours nerf, discussion toujours du fun agréable dindi lay L'air ne tili, gagne